asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax baax ñu bëggoon a wax rek ci euh, mbiru Bougazelli ak vidéo bi nga xamante ni fan yi moo nekk ci toile bi di circuler ci réseaux sociaux yi nit ñi di ko partagé mu nekk vidéo boo xamante ni euh, mooy bi koy waa section de recherche di arrêté bu gendarmerie nationale jàpp ko à flagrant délit ci ay mbiru faux billets ci lañ ko filmer noonu moom nag. Bougazelli ci oto ba moo gendarme yi rek ñoo fa nekk te génn na tudd turu gendarme bi nga xamante ni moom moo ko filmé di Abdou Aziz mbay dëkk pikin ba tuumaal ko sax ne euh, gendarme bi da ko doon laaj cinquante million pour ñu gérer ko waaye xam naa ne loolu moom ay fen la du dëgg parce que ci biir oto bi caalit na fa caalit yu métti voilà léegi nag ñu bëri ñu ngi wax naan euh, gendarme bi ndax amna droit filmer ko wala amul droit filmer ko man nak je suis pas un spécialiste de droit voilà xawma ndax un agent assermenté bo xamanteni OPJ le moy officier de police judiciaire ndax su jappé nit à flagrant délit amna droit filmer ko pour am ay preuves wala déet lolou man wóoruma waye dal xamna né Sénégal mom fu mu ni deuk la bo xamné tiit jot na lu tax ma ne tiit jot na mooy kenn ku nekk rek yow mën nañ laa filmer parce que filmer wante léegi dafa xew sulli wante mbóot dafa xew weerante dafa xew xaw yi wante sutura dafa xew léegi ci Sénégal te ñun kenn xamewuñu lool senegal dañoo nekk peuple boo xamante ni lu ñu xamee woon mooy sutura yar teraanga ngor loolu la ñu xamee woon ndax suñu maam yi loolu lañu ñu te loolu yëpp diine daf ko bëgg waaye laata diine di dugg Sénégal muy euh, l'islam ak christianisme fekk na sax ñun ñu yore ay jikko yu rafet moo tax diine yi bi mu ñëwee dafa ànd ak jikko yu rafet yooyu noonu adopté ko waaye dañoo seetlu ne ci régime Macky Sall ci la mbir yi commencé ndax Macky Sall moo matul kilifa moo matul njit il est irresponsable je le dis haut et fort parce que biñ ko falee bees daf ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression léegi nag opposition mooy ñi koy opposé ñëpp muy ñi ko ñu ci opposition bi di def politique les activistes ak képp koo xam ne dañ ko contre Mon père, na pour lu mu laaj rek mu yàq sa àdduna mais enregistrement yi ak nit ñi filmer nii mais fan la commencé si vous vous rappelez Cheikh Issa Sall mi nga xamante ni c'est un magistrat assermenté wara a le bon exemple wara a magistrat nga xamné bu nit défé lu yoon moom lay la ci li loi bi wax mu Il lako mom à Ousmane Sonko mi nga promotionnaire la école nationale d'administration nga xamné fa former les magistrats Il faut former les inspecteurs des impôts et domaines Issa Sall bobu noonu am ak Ousmane Sonko kóllëre ci conversation téléphonique ak Ousmane Sonko mu enregistré ko à son insu dem jël ko jox ko wa APR yi maanaam ñi and ak Macky Sall à l'occurrence Yakham bay mu o wa leral.net point net ne amna exclusivité japp ne yak nañ Ousmane Sonko ñom ñu publier audio Ousmane Sonko té lolu ku ko def c'est un magistrat xam lan mooy yoon xam lan mooy droit xam lan mooy diffusion de données personnel lan la ci loi bi wax su nit defoon loolu tey bañ war ko àtte Issa Sall man man mën na toog moom di ko àtte moom ba pare war ko daan moom moo def loolu pour lan pour faire plaisir à Macky sàll pour lan pour bëgg ndomba tànk

motax affaire bi deful dara ñu ne way ñu joggé fofu non ñu ñew ci affaireu aji sar parce que Ousmane Sonko moy sen problème ñom Ousmane Sonko rek moy sen problème ben problème rek le Macky Sall am mok ñimu andal moy Ousmane Sonko comment faire pour éliminer Ousmane Sonko xam nga daf daan éliminer ay nit muy yomb lol éliminer na Karim wad jalgati yoon au lieu que mu le procès euh, Karim Wade bi ci yoon jaarale wu ko ci yoon parce que Karim Wade ku ñu war a la ku doon gérer alalu Sénégal ay milliards war nañ la atté réduction des comptes war na am ak ku manti doon mais jaarale ko ci yoon mais jaarale wu ko ci yoon daf doon venger wu parce que dafa amone règlement de compte avec la famille Wade fat liñ ko defal yépp ñew jël nguur gi rek déclencher vengeance bi mu def ko Karim Wade mu yomb mu ñëw def ko Khalifa Sall parce que daf ko ragal ci dakaar parce que xam na ne élection présidentielle yi yi doon ñëw mooy 2019 dakaar moom mënu faa gañe Khalifa Sall te Dakar ku ko perte da ngay dem deuxième tour te bu demee deuxième tour ñu faj ko faj yu métti duma ko mu toroxal Khalifa Sall jiñ ko sàcc affaire bi yomb lool ci moom léegi nag kenn rek moo ko të mooy Ousmane Sonko xam nga luy olof di wax naan. da ngay laal di laal di laal di laal di laal ba laal laalaate léegi waa daf kaa tëj il a tout fait pour éliminer waa te dafa xeeboon waa ji début bi parce que début bi waa dafa dem élection euh, législative 2017 am député par plus Forest reste fekk dàq na ko en 2016 mu ne ax ah, kii du dara dàq naa ko ba pare dem na élection mënul sax am benn député plus Forest lañ ko joxee benn député léegi nag élection présidentielle yi ñëw mu bàyyi parce que élection présidentielle mom mo moo ay candidats yam tégg ak ñom deal Idrissa Seck Cheikh Issa Sall je Niang dis que moo na 5 candidats moy am ba paré yi dinañ gagné 58% au premier tour té nous, la démé à l'issue des élections nak Idrissa Seck dem Cheikh Issa Sall dem que di sóob nan mom dañ ko politique comédien bi

léegi nag ñuy gën di dem waa ji def ascension rek waa ji di gën nit ñi di ko gën a bëgg mu jaral xale yi lu nekk te réew boo gis xale yi ñoom ñoo ko yore ñoom ñooy avenir u dëkk ba te Sénégal jeunes bi ñoo fa ëpp 60 pour cent sénégalais yi jeunes lañ léegi nag ñooñu ñoo jox bopp Ousmane Sonko mu jaral leen lu nekk waa ji def lu nekk pour arrêter Ousmane Sonko ba ci affaire Adji Sarr bii nii bi ñu jógee ko ci enregistrement yi ñu doon def te jàllul ñu teg ak deal Adji Sarr ñoom ñëpp xam nañ nu demee Adji Sarr ndey Xadi daf ko dàqoon ci salon ba bi mu ko dàqee ci salon ba ñu xam ne kii nekkoon na ci salon bu Ousmane Sonko doon ñëw euh, boy bi nga xamante ni moom mooy jarbaatu Maodo Malick mbay bi di Sidi Ahmed Sidi Ahmed mbay ak Adji Sarr dem wax ko ponkali ponkali nak ne nañ ci profité ñoom Mamour Diallo ak ñom ñep ñoo nekkon ci deal bi pour jiiñ waji viol comme ni ñu doon def nit ñi bu njëkk ba pour ñom non lay yombé manam dañ koy jiiñ viol taf taf rek yóbbu brigade de recherche après gars yi door ko garde à vue après jël levé immunité parlementaire am ko parquet parquet prince ko sous mandat de dépôt ñu ubbi instruction troxal ko ne jeexna éliminer nañ ko sénégalais yi génn na leen da ngeen di fenn billahi waxu leen dëgg xale yi genn dal sen kaw xex ak ñom xex bu metti ñu daw fukki xalé ak ñent deej ci quelle irresponsabilité te Macky Sall xamone na li xew tok di seetaan japp na amna occasion néna occasion yi la dama ko daan raté mais cette fois ci mom c'est la bonne ki dama koy japp tëj ko ci kasso bi ba yéen ngi dégg Ousmane Sonko sax def na ay révélation yu grave bimu mu ci conférence de presse bu Yana Mar bi mu ngi wax ne procureur dafa doon wax ne da doon wax kilifa naan ko yow da ngeen di jàppale Ousmane Sonko mais yéen di ngeen am problème Ousmane Sonko xoolal dañ koy teg un procureur de la République loolu moom c'est un danger public Bassirou Gueye gàcce la pour Sénégal Bassirou Gueye daf ñu déshonoré te loolu yëpp Macky Sall moo koy sant Sall buloo boobu noonu procureur buy politique buy menacer ay nit naan dinaa leen teg procureur buy rëbb ay nit procureur buy deal pour jàpp opposant léegi procureur boobu nag moo nekk au cœur du deal bu Ousmane Sonko bi pour ñu arrêté ko ci affaire Adji saar bi di au gendarme yi di leen teg pression dam leen jàpp Ndeye Khady Ndiaye na wax bëgg a wax loolu Ndeye Khady Ndiaye loo xamante ni du dëgg Ndeye Khady Ndiaye jàpp fu mu jàpp rek gore trop ñu jëm ko corrompre mu bañ nekk ku gore moo jëkkëram Ibrahima bali di teg euh, pression ñoom commandant Meng ñoom capitaine Touré bëgg ko changer leur bi capitaine Touré bañ. démissionné ñu créer ko ay problème yu rëy léegi nag Mamadou Seck bi nga xamné mom moy juge du 8e cabinet convoqué Ousmane Sonko Ousmane Sonko di dem ñu xamné bu démé affaire bi day vide parce que Mamadou Seck bokul ci sen deal bi sen yi salte yooyu bokku ci parce que gis nga fuñ ko yob 8e cabinet lañ ko yob ci parquet bi dafuñ ko doyen des juges dafuñ ko euh, procureur <laughs> mais euh, juge du 8e cabinet lañ ko def xëy na dañ ko ko nommé non rek. ñu foogoon na nag dina leen jàppale ci deal bi buñ amee information am certitude ne waa ji su ñëwee su Ousmane Sonko ñëwee daf koy bàyyi parce que le dossier est ay fen la léegi nag procureur ak Antoine Diome ak ministre de la justice bi Malick sàll ak seen préfet ñu teg beneen deal nag ne pro provoqué leen Ousmane Sonko buy dem ngeen koj ko ci yoon bi ne ko non doo jaar fii fii ngay jaar su indee problème ngeen jiiñ ko trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation notorisé Ce <laughs> ko defee ñu am luñ ko jàppee affaire bi nekk gàcce go xamna ci aduna bi ñëpp di wax Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal ñëpp ruus procureur bi si bopam mo nekkon ci deal boobu non en complicité avec Macky Sall le président de la République parce que dégg na moment boobu ci palais ba la dan tok tal cigarette am di len saaga ndey naan leen il faut que ngeen arrêter Ousmane Sonko dégg na day saaga ndey dégg na day saaga ndey yu metti sax mo fi dàq saaga fi de source sûre nak la len wax man du ma nit wallahi jomb naa l'ol. affaire bi échoué Sénégal di tak ñu lak fi ay magasin wu jambour lak fi ay auto jambour lak fi ay këru jambour. ay nit dé am gendarme GIE jeune bo xamanteni loxom dafa dag di un jeune bu am avenir gentleman njool ci kaw respect ñu yàq aduna am loolu yëpp le seul est unique responsable c'est Macky Sall un président irresponsable Sénégal nous sommes en danger parce que vous démé président bu Fay comme Macky Sall di di def ay bassesse deal pour ñu enregistrer ay pour nga capturer tëj ci bi toroxal nga ne république bi dévaloriser nañ république du Sénégal euh, dañu les institutions est-ce que sénégalais yi lii lañ mérité man dama naan waaw sénégalais yi lii lañ mérité njiit bu mel lañ mérité parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne kama takunuuna yuwaala alaykum yàlla wax ne inna allaha laa yugayiru ma bi xawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim nit ku nekk njiit bi nga mérité rek ngay am réew bu nekk njiit bu ñu mérité la am parce que réew la boo xamante ni bëri na jaayante bëri na ñàkk waxante dëgg naafeq gi bëri na fa ku yore nguur wala nga yore alal kenn du la wax dëgg ñëpp dañuy ñëw daw si sa kaw loo def ñu ne baax na soo ñàkkee ñu marginaliser la bu ñu xew boo bu ñu xewlee duñu la ko yëgal bu ñu la rombee sax duñu la nuyu soo waxee ñu ne kii dafa bon xol dafa iñaan parce que dafa ñàkk société boobu noonu nga xam ne naa fekk moo ko composé bu nit yoree nguur lu mu def baax na ñi ko doon saaga démb tey ñoo ñëw wëraat ko ànd ak moom di siège ci conseil des ministres ñi nga xam ne dafa leen defoon ci liste créé bi vingt cinq personnes yi ñooñu tey ñoo dem ànd ak moom ñooñu ñoo ko xeex tey ci Abdoulaye Wade ba poussé ko à la mu démissionné ñooñu ñoo ñëwaat wëraat ko dégg naa ci ku ñuy wax Modou Diagne Fada génn na day joxe ay leçon di wax ay waxu dof nan ay nit ñi dañoo bëri fitna réew mi ñu war a tëj seen làmmiñ ñi ñoom ñooy wax ñoo xam ne duñ ay gor duñ ay exemple ay jaam lañ ay traître nga xamante ni seen seen àdduna yëpp. sucé directu sénégalais yi lañ lañ lañ lañ ko lañ ko lañ ko nekkee seen àdduna yëpp dañu doon di muucu directu sénégalais yi rek lañ nekk ba pare di génn di joxe ay ay ay exemple ay Samuel Sarr ñooñ soo leen déggee nga ñuy wax yow da am envie sax pour ray sa bopp pour xaru ji ay nit ñoo xam ne duñ nitu dara ay bandits de classe exceptionnelle ñoo ñoo wër Macky Sall Macky Sall façon nit ñu la soxla façon doomi adama yoy la soxla ñi am baat ci Sénégal ñu leen di tuddé ay kilifa ñu ci bëri tay dañuy tok di sétane Macky Sall muy def di n'importe quoi di japp ay moromu sénégalais di leen toroxal di leen xagn sen ay droit ndax mom moy président de la république ñepp tok di ko setan, am benn wëy kat bo ni tay ni mu mel sénégalais sénégalais ko ko def de muy Youssou Ndour moom ma nga dem féeteeg Macky Sall Macky Sall di toroxal nit ñi moom mu toog di cautionné ndax ay intérêt boppam kon réew moomu noonu président bu mel nii lañu ñu mérité fekk changé wuñ suñu jikko yi comme ni ma ko waxee sànq ci aaya bi inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dafa am jikko yoo xamante nii mooy nekk ci nit nekk ci peuple ci askan pour réew mu mën a jëm kanam mooy jikko yu rafet rafet mooy nangoo waxante dëgg bay naa feq bàyyi jaayante am kóllëre bax tabe am yërmande moy jikko yu rafet yooyu nga xamanteni mom la yàlla tagge won yunus bi sallallahu alayhi wasallam nako wa innaka la ala xuluqin azim yo so jikko yi dafa mag dafa kawe yunus bi sallallahu alayhi wasallam sallam ko ci nako yow abdullah moy sa bay wala abdul mutalib moy sa mam aminata moy sa yaay ay bani xurayshi non non non non ci jikko yu rafet la ko la ko tagge jikko yooyu nag réew mu mu nekkul réew moom du baax te pourtant tubaab yi ñuy wax ne ñoom duñ ay jullit ne gëmuñ dara ñoom ñu ngi yore ay jikko yu rafet moo tax dafa feeñ ci seen réew mi ba mu jaral suñu xale yi tey di dugg gaal di dee ci Méditerranée bi ak océan Atlantique bi ak ci désert bu libi bi pour ñëw Europe parce que jikko yooyu. ñu yoré sen réew moy jikko yi nga la peuple wala pour réew ma jëm patriotisme moy corruption la bonne gouvernance moy égalité moy justice équitable mom sa justice bo xam fay mom bopam di atté diko ci yoon nga xamné manipuler duñ ko nangu ay juge yu intègre yu moom seen bopp loolu mooy jëmale réew kanam léegi nag gis nga Sénégal fi mu toll nii c'est de bonne guerre comme ni ñu koy waxee saa su nekk su lente mboodi nii pareegul parce que ñu nekk ci nguur gi ñoom loolu lañ jël daf ko arme léegi gis nga ceer bi enregistré euh, kilifa mais ceer <laughs> li tax mu enregistré kilifa yéen da ngeen foog dafa yeewu nii rek dem enregistré kilifa ak si moom mais loolu benn processus la boo xam dañ ko fa jaarale utiliser ko ku nekk yaa ngi joxe sa version mais ba fa muy leeree dañ kaa yónni ne ko toppal ñu sa waa ji parce que koo ànd ak vingt ans kooku booy wax ak moom doo xalaat na dina la enregistré wala mu lay filmer man mii tey ku may àndal vingt ans.

loolu lañ fi nekkee léegi nag beneen camp bi nga xamante ni tey ñoom ñooy opposition bi mooy ñi nekk ci opposition bi rek parce que opposition bi kenn lañ ci gën a ciblé mooy Ousmane Sonko te képp ku jóg rek dañ naan Ousmane Sonko la faral képp ku jóg di wax ñu ne Ousmane Sonko faral léegi heure bu ñu tuddee Macky Sall Ousmane Sonko lañ ciy teg léegi nag comme dañuy yàqante dañuy def le tout pour yàq Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ak ñi faral Ousmane Sonko mais ñoom it dañuy dañuy def le tout pour yàq ñi la ñoom it c'est de bonne guerre. il faut bien comprendre lolu donté nak a am mais que ñi ko ñaké que Macky Sall ak ñi parce que Bougazeli mi ñu filmé mais Bougazeli heure bi kasso lako warono fekk ñu flagrant délit ba tentative de corruption du corrompre de nan nañ ko gérer li mu ak Macky Sall mu def mois bi mu gonne genné au lieu que mu sutural bopam nopi donte nit ñi ñu ngi doon plaindre ci gennam gi nu mu gaawé ak lu ñu genné ko lay ñu lay na dafa febar ñaat nit ñoo febar nek kaso te génneewuñu len ñu len ñu ngi nek fofu nan sen ay garab ñaata nit ñoo purger sen peine te ñu ngi febar ba sen peine jeex ñu sogo genn parce que Macky Sall la def crime nek un délinquant économique un délinquant financier 32 milliards de faux billets ñu japp ko ci mom mu waroon joxe le bon exemple parce que c'est un député joxewul le bon exemple parce que dañu ko fal ne ko demal assemblée nationale diñu voter voté loi qui ki war a voté loi yi j'ai le moo jalgati loi jalgati yoon motax tax mode d'élection bi war nañ ko xoolaat di xol yeen façon doomi adama lañuy fal di leen yóbbu assemblée nationale waji boko déggé muy wax nga xamné ki kii normalu xamul sax lu xew àndul sax ak sagom parce que bop bi dafa dess ay wax dof rek lay wax genre yoy lay Macky Sall di andal Macky Sall façon doomi adama yoy la soxla soxlawul ñi nga xamné ils sont instruits boroom xam-xam yi ñu am classe am valeur am personnalité il n'a pas besoin de ces genres de ces personnes Macky Sall pourriture yi la soxla comme ay Seydina Fall Bougazelli de faux lion à l'hémicycle je n'ai rien contre les faux lions nag mais maam maa ko waxee noonu rek de simb à l'hémicycle xam nga Moussa Diakhaté dafa waxoon de daara à l'hémicycle livre am ba mais Seydina Fall Bougazelli de faux lions à l'hémicycle ca simb te dégg naa sax nekk toon gaynde ku góor rek gaynde gu jigéen la woon léegi nag yow heure bi waroon la fekk kaso nga au lieu nga suturaal sa bopp nga nekk fi yore rajo yeeg télé yi di saaga nit ñi di leen xas di attaquer Ousmane Sonko te dangaa waroon a noppi def lu ne weng crime bu mag a mag a mag a mag parce que dangaa ànd ak Macky Sall moo tax nga génn kaso li li rek lay indi frustration fayuwante mom lay indi lolou motax nak gaay gars ba am vidéo yam ba jël ko génne ko teg ko ci toile bi léegi fum nek ni nii vidéo bu opposition bi manam ñi may tuddé opposition man moy côté Ousmane Sonko bi rek laay wax parce que guerre bi yépp Ousmane Sonko la ñuy guerre moy ñi nga xamné dañoo bok ci parti Ousmane Sonko ak ñi nga xamné bokkuñ ci parti Ousmane Sonko nek ay xalé yo xam dañuy volontaire rek bëgg Ousmane Sonko te yalla tax ñi ci ëpp nak ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñoo ko ñoo fa fees dell dominer ko te am xam-xam lool ci wàllu réseaux sociaux luñ ci man waa camp bale mënuñ ko waa kër Macky Sall yi jot bu ñu am xale yu ndaw lañ jot bu ñu am pour di nekk ci réseaux sociaux yi ak yite bu ñu ciy def ñële amuñ ko te mënuñ ko xale mooy ëpp yitte ci yooyu parce que kële mag ñi rek ànd ak moom man gisuma benn xale bu ànd ak Macky Sall xanaa nga nekk xale bu waye di mais xale yi nga xamante ils sont conscients sont avec Ousmane Sonko te gars ni ñuy def pour yak Ousmane Sonko ñoom it noonu def pour yak ñële moo tax ma ne am na yeneen vidéo yoo xam ne soo moytul dina génn te ñële ñoo commencé affaire bi ñoo waa kër Macky Sall yi ñoom ñoo commencé est-ce que bu ñu jàppee Ousmane Sonko comme opposant japonais Ousmane Sonko c'est nawle la Ousmane Sonko dafa am droit pour opposer wu parce que c'est un sénégalais bàyyi ko rek may ko jàmm.

tey jii ku bokk foofu rek yow loo manti def yow jàmm ngay am ak lu mu garaaw garaaw garaaw garaaw crime bi nu mu manti toll doo dugg kaso Macky Sall bi mu toogee ba léegi kenn rek lañ mës tëj kaso te dañ ko jàpp flagrant délit mooy Bougazeli te Bougazeli six mois la fa def te waroon na fa tëdd ay ati ati at parce que lu mu def si un crime ak ñaata nit ñoo ànd ak Macky Sall ñu tudd leen ci ay détournement de deniers publics mu leen di protéger am na ñoo xam ne da leen da lay ci benn direction def la ministre ñaata nit bëri nañ chaque jour ñu wax ko dañoo lim ba sonn ñaata scandale moo am suu Macky Sall mu protéger leen gis ngeen passeport diplomatique yi ñu tudd député yi nii tey bu nekkoon député boo xam ne ci opposition bi la wala mu nekkoon Ousmane Sonko kenn waxatu ko xol affaire aji saar bi nga xam ne ay fen kase la Moustapha Niass pa boobu nga xamante ni tey heure bi waroon na ko fekk këram mu yore kurusam ak jaadaam di julli di ñaan fas ne tuub lu des ci dundam paa boobu tey moo jiite woon xeex bi moom taf taf ñu accélérer affaire bi procureur bind bind ko ne léegi nañ lever immunité parlementaire Samba Sall doyen des juges yàlla na ko yàlla yërëm moom it bind ne nañ lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ci ay fenu nen ñu gis PV yi li mu wane. gis euh, gynécologue bi limu mu certificat médical am wane dara amut ay fen la lolu nak ñu accélérer affaire bi di fowé institution wu Sénégal yi assemblée nationale nga xamné ne dafa warona am gëdd am cër bu maga maga mag séparation du pouvoir lañu wax pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire malheureusement exécutif bi dafa am mainmise ci ñaar yëpp di leen manipuler ñuy voté ay loi pour di xex nit ñi ay voix liberticide di fowé Sénégal kilifa yépp tok di sétane kèn ñeme wala yëkuti kàddoom wax kèn ñëpp a ragal a wax kèn du ci jël sa responsabilité wax ndax ragal lan lan moo tax ñu ragal lan mo xew lan moo tax nanguwu ñoo jël sen responsabilité xamna ne dañoo am cër ci réew mi ki jité réew mi bu waré bu défé lu jaaduwul ñu génn jël sen micro dal ci kaom wax ak moom ba sénégalais yi xam ne ñii ñu ngi wax magam waxoon naa ko moo gën magam yëgoon naa ko ñu waxante dëgg Sénégal dafa yàqu lu neex waay def kenn du la wax dara dafa jéggi dayo moo tax ma ne mbiru député yii nii tey bu doon député yi bokk ci opposition bi wala mu nekkoon yalla téré Ousmane Sonko wala ku ko djégé Ousmane Sonko ku bok ci partem jeex même pas une semaine dinañ accélérer procédure bi lever sa immunité parlementaire djébal la justice ñu atté le tëj la ci kasso bi wala Khalifa Sall procédure bi num mu gaawee accéléré ñu atté ko première instance mu dem cour d'appel <laughs> ñu débouté ko mu djégé fa dem cour de cassation ñu débouté ko mu des rabat rabat d'arrêt ñu ne ko non non loolu yëpp ñu ngi doon sóoraale élection présidentielle 2019 mu nekk lu flagrant lu ñaaw déggoo benn kilifa bu yëkkati kàddoom ci Sénégal ñaawlu ko benn sénégalais bu toog di toroxal ay moromu sénégalais ay digne citoyen ñëpp toog mel ni Sénégal amul kilifa Sénégal gi ñu xamee woon dëkk boo xam ne dëkk bu dëkk dëkk dëkk bu nekk exemple ci yenn réew yi Macky Sall mi ñëw yàq Sénégal yóbbaale ñëpp. ñëpp di seetaan kenn ñemewut a ci kàddu ñun ñii rek ñooy wax jël suñu responsabilité ak ay risque nag lu nekk mën nañu see fekk ñu naan ñi da ngeen a bëri wax da ngeen a réew te dëgg rek la ñuy wax saagawuñ kenn xasuñ kenn dañoo gis ne réew mi ñu bëri dañoo démissionné ñu waroon wax dëgg ñëpp dañoo noppi ñun ñu engagé wu volontaire di jël ay risque lu nekk mën ñu see fekk. parce que am na suñu ay morom yu bëri lu nekk fekk na leen ci xool Ousmane Ousmane Tounkara luñ ko luñ ko naroon a def jiñ ko terroriste ne dañ koy indi Sénégal donte lu mu def war a ko woon a def ànduma ci ak moom dafa menacé ay nit daf leen a menacé de mort mais boo koy porté plante porté ko plainte rek pour menace de mort mais nga naan ko terroriste la pour bëgg ñu yàq àddunaam pour lan sa doomi réew

mu dem Medina gàddaay foofu ñu continuer ko topp ko sonal ko di ko attaquer ay guerre lu nekk mu def si ba ni mu génnee àdduna mille quatre cent quarante trois ans ba léegi ñu ngi continuer di ko saaga di ko caricaturer yow nag doo yënantu doo dara doo tus lu dul président de la république nga xam ne si éphémère nga ne yow kenn du la wax dara dañuy toog rek di la wax ne da ngaa baax yaa fi dàq liggéey te liggéey biñ la sant pour nga def ko ci Sénégal defoo ko mais au contraire lenn nga jël daf ko liggéey mooy vengeance mooy répression di réprimer nit ñi di toroxal nit ñi di menacer nit ñi ñi ànd ak yow di saaga nit ñi ñi ànd ak yow façon ñaawteef bu nekk dañ koy def kenn du leen def dara. léegi nag opposition bi rawatina ak ñi ànd ak Ousmane Sonko képp ku ci wax rek ñu dal sa kaw bu ñuy wax nit ñi dañoo bëri fitna sax dañuy fàtte ne ñi ànd ak Macky ñoo gën a bëri fitna ñan lañuy dal seen kaw mooy ñu ànd ak Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko génnee wax ñu dal ci kawam te Macky Sall lu muy def ci suuf ak ay xaritam ak ñu àndal moo gën a yées moo gën a bon te ñoom ñoo jiitee réew mi ñoom ñoo wara joxe le bon exemple mais noonu Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne da gis nit yore doole di doole duñ la wax dara su nit di fayu nag ñu ñëw na ko bàyyil fayu bi duñ wax sax kuy dóore na ko bàyyil dóore yi lu tax ngay fayu lañ lay wax avec ça ñu ne dëkk boobu dina jëm kanam du mas jëm kanam waaye nag fi may jeexale gis nga vidéo yi nii yëpp li ko waral ak su lente mboot yi yëpp lii alaku rek mooy ni ma ko doon wax wa ida aradna an nuxlika xaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawl fa dammarnaha tadmira su fekkee dañuy ay nit dañoo jité rew yàlla da leen di xir rek ñi def lu bon fekke daf leen nara alak am ño xam dañ leen ci top nak di jël nit ñi di toroxal di wer nit ñi di saga nit ñi di jàpp nit ñi tecc ci kasso di réprimer nit ñi di len jiñ ay yuñ defut pour japp len tej len ci kasso bi yalla da len di xir rek xirtal len rek ñom ak ñu andal sen gangor gi ñu def lu bon rek su ko defé nak fa damarnaha mu alag len tadmiran ak halak motax ñi dañoo alaku ci alaku lañ nek ci alaku ni lañ nek xolal tay luñ def kilifa ak simo moom man nañ ko jappé na flagrant délit la parce que dañ leena filmer à leur insu hmm? léegi procureur nag profitoo ci jàpp leen tëj leen ci kaso bi ne day ubbi instruction te loolu flagrant délit la waroon nekk def nañ ko fi Pape Ndiaye journaliste affaire civile ñu jël ko def ko affaire penal tëj ko kaso parce que day toog ci rajo bi ak télé bi di dal ci justice bi di wax seen dérive yi ñu nekkee seen ñaawteef yi wax ne Samba Sall mi génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ak Bassirou Gueye ñoo yàq justice sénégalaise bi di sulli ay mbóot ki nga xamne dafa jégué Macky Sall nek ministre conseiller violé ben xale bo xamne mineur la Pape Ndiaye di wax ci dossier bobu nonu te dossier bobu ñu ngi koy jël diko ko nëpp nëppal ba pare nak ñu jël Ousmane Sonko mi nga xamne sen adversaire la pardon jiñ ko fi viol bo xamne du deug ba dëkk bi tak fukki xale ak ñent génn ci aduna Basirou Gueye teud fi mu teud day wone ne mom procureur la bo xamanteni day tok fek activé wuñ ko nako jogal auto saisir du auto saisir du jël ben responsabilité pour auto saisir dekk bi lu ne amna fi ñaawteef bu nek amna fi Bassir gay tok fek Macky Sall waxako nako jogal auto saisir wala ministre bi fum tok rek lay tok motax man j'ai pitié quoi de mon pays Sénégal dama ko dama ko tital parce que luy ram ci ñak bi la jëm té ñu bari dinañ wax né man waxon nako man mi di wax ak yeen ak ñeneen ak ñeneen man je tire toujours la sonnette d'alarme voilà ñu bari nak xëy na duñ ci bàyyi xel mais gis nga li ni suñ ci jogut ko suñu à notre manière de manière pacifique pour li fi am ni jógee fi définitivement réew mi dina yaq te gis nga réew mi am na bu fa aggé ñu nous dinañ am gatch ñuy oté ay kilifa wallahi dinañ parce que dinañ ba li nga xam ne dafay raam jëm ci ñag bi te su boobaa dafay trop tard ñaanuñu ko yàlla yàlla bu mu am nag su naree am yàlla na ko fi yàlla yemale yàlla bu mu mas a am insha allah yàlla ñu yàlla suturaal comme nu ñu yàggee suturaale asalaamaaleykum wa rahmatullah